merci président maa ngi nuyu sama collègue député yi di nuyu représentant du gouvernement monsieur le président assemblée nationale maa ngi jël kàddu ci li ma yoon may ci règlement intérieur assemblée article 74. article 74 boobu ni nga ko liire noonu la heure boo xam ne lii noonu rapport bi bépp membre député bu nekk am nga sañ-sañu nga jël kàddu nga li nga xamante ne mooy débat bi nga asar na ko monsieur président la assemblée nationale tey ñu ngi indi proposition de loi boo xam ni méngoowul ak constitution bi ndax boo jëlee tey jii li nga xamante ni mooy proposition bi numéro 04 2024 amul sax date c'est la première fois histoire du Sénégal depuis 1960 ñu indi proposition loi boo xamante ni amul date te loolu yaakaar naa ne injustice bi ak euh, li nga xamante nii tey waroon ko mën a wax ni kon jàkkuuru te loolu baaxul monsieur le président boo jëlee article 31 bi nga xamante ni moom lañ wax ni dañ ko war a xoolaat article 31 mënuloo ko xoolaat te xoolaatuloo li nga xamante ni mooy article quarante cinq parce que monsieur le président article trente et dafa wax ni président président de la république ñu ngi koy war a tenir date boo xam ni le vingt cinq février lay doon te avant quarante cinq jours lan ko war a def kon jàpp naa ni li nga xamante ni maanaam moom mooy li ñu wax nii ci article trente et un bi mënuloo koo def te demuloo si article cent trois kon jàpp naa ni bu fekkente ni tey dañuy dox te république bi rek ñor na di dox pour askanu ñor na waruñu jël tey ji ay loi yoo xamante ni dañuy tax Macky sàll reste dans la poire sur ce qu'on parce que li mu mën a jàpp mooy bu loi bi jàllee fii ba 200 ba 300 day maintenir pouvoir am te loolu duñ ko accepté tey duñ ko accepté ëllëg moo tax monsieur le président maa ngi demande sama collègue député yi ñëpp ñi nga xamante ni askanu ñor na leen démocratie ñor na leen réew ñor na leen seen intérêt bu taxu ñuy wax ñu arrêté li nga xamante ne mooy débat bi te li nga xamante ne mooy république bi war a taxawaat ñu tëgg élection yi ci date xamante ne moom la constitution bi wax ndax monsieur le li nga xamante ni mooy li ñu war mooy respecter loi ak ay règlement respecter constitution bi loolu mënuloo ko def ba pare di violer li nga xam mooy constitution bi man bokkoon naa ci candidat yi nga xamante ni dañoo proposé woon pour bokk ci élection yi ñu rakkale ma d'accord ci loo xam ne teguñu ko ci yoon ñu def li nga xamante ni mooy bind président de la république lettre wan ko ni ko li ñu def teguñu ko ci yoon nañu ko xoolaat mais bi ñu koy wax booba processus électoral bi mi ngi doon dox ndax conseil constitutionnel génnee gutoon li nga xam mooy liste définitive bi mais bu xasee génn liste définitive bi bi ñu toogee ak président de la république ñu wax mooy décision conseil constitutionnel kenn mënu see réunira kenn mënu si deftu ginnaaw d' accord léegi nag yéen xool leen nu ngeen di def man du ma bëgg may Macky Sall mu continuer di fi toog di yàq àllu réew mi di ministre mi di sàcc xaalisu réew mi ma koy jox maanaam muy continuer def loolu loolu accepté ko tey accepté mu ko ëllëg moo tax man mi bokk si groupe parlementaire bi d' accord naa parce que bu ma d' accord du ma wote li nga xamante ne mooy li nga xam mooy enquête parlementaire bi mais d' accord de pour ñu yokk mandat président de la république pour mu continuer di fu toog d' accord ma si loolu tey d' nga xamante ne moom la ñu jox président assemblée nationale ak sama collègue député yéen ñi nga xam ne réew moo leen ñor seen intérêt bopp ñuur leen te président Abdoulaye Wade la ma waxoon le 23 juin nee na woon askan wi moo tax ma deltoon ginnaaw retiré procès bi kon maa ngi appel képp koo xamante ne tey citoyen nga nga nekk député toog fi askan wi projet loi bi ñu retiré ko monsieur le président en tant que mouride mënu ma nangu ñu tëgg élection bisu màggal ko bisu màggal ba suba ga ndax màggalu gi la 24 août la le 24 août mënoo ko def ba le 25 août nga war a def ak ay élection loolu d'accord ma si yaakaar naa ñun ñi nga xamante dañoo nekk ay murid il faut ñu jox ñu cër respecté ñu aussi parce que ku ne xam na ni procès bi date bi ñu ko def baaxul ni ñu ko war a defee baaxul ni ñu ko dogee baaxul kon jàpp naa ne waruñu ko jàlle bu fekkente réew mi rek moo tax man nag dama sama intérêt dafa jël parti dafa jël coalition askan wee ma ñor askan wi moo tax ma ñëw fi ndax sëriñ Mountakha si boppam ban fa demee démb nee na d'accord si lii nii démb ba fa ministre bi demee nee na ko d'accord pour ndax élection yi kon comme que d'accord kilifa diini d'accordul labbe yi d'accordul askan wi d'accordul pourquoi ñu bëgg a dàq élection yi man day sama intérêt bopp bu fekkente ni Cheikh Abdou Bara Dolly mi nga xamante dafa nekkoon candidat nekk doomu daara indi programme 155 ñàkk 100 millions francs CFA ñu éliminer ko intérêt askan wi ñoo ma gënal tey yàlla seet na ni xaalis boobu ma ñàkk ñu tëgg élection yi pour intérêt askan ko gënal kon jàpp naa ni élection yi dafa war a continuer dafa ko war a tëgg ci date bi nga xamante ni moom la constitution wax képp koo xamante ni waxtu nga ko da ngaa trahir peuple bi da ngaa trahir Sénégal je vous remercie président merci chers collègues le président de la commission vous avez la parole suivi du rapporteur Merci, Monsieur le Président. Pour ce qui est de la date, pour dire à mon collègue qu'à tout moment, au niveau de l'entériné, on peut ajouter la date, comme aussi l'initiateur de la loi peut faire un amendement pour le régler. Pour ce qui s'agit maintenant, li ma bëggoon wax rek mooy ni Serigne Mountakha moom nee na bu ko kenn dugal ci mbiru politique a mbiram moom mag mbiru politique ku sant Mbàkke ku sant keneen a je demande pour ça, Monsieur le Président, pour dérogation qui est par rapport à l'article 31. Je demande la poursuite des débats. Les faits avancés par notre collègue ne fait que divertir l'Assemblée. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Euh, chers collègues euh, députés, euh, je voudrais juste vous dire euh, que la date, euh, ce n'est rien d'autre qu'une omission involontaire et qui sera corrigée. parce que c'est le 2 février 2024. C'est la proposition de loi constitutionnelle numéro 04-2024 du 2 février 2024 portant dérogation. Donc, concernant les autres observations, moi, je demande à ce qu'on poursuive les travaux. Merci, chers collègues. Quels sont ceux qui de la question préalable Non, non, c'est une question interne de l'Assemblée. Quels sont ceux qui sont pour l'adoption de la question préalable compte leen deux voix quels sont ceux qui sont contre